alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallam ala sayidina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Sidi moom sëriñ Abdul Qadir mi nga xam ne moom la sëriñ bi tegoon ci loxoom saytu liggéeyu màggal gi mu ànd kook mbokk yi ak taalibe yi kàddu gi kàddoom la ci turam ak ci ndigalam lañ ko yëkkatee kàddu yu sant rek la nga ak ñaan sant bu baax li nga xam ne sëriñ bi tegoon na ko ci loxoom ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci eh, jot li ko sëriñ bi loolu moo tax mu bëgg a yëkkati kàddu gi ci xew-xew bu mag bii nag nga xam ne mooy xew-xew fàttaliku gane àdduna ak sëriñ Abdou Khadir Mbacke di koo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko buñ koy fàttaliku faw ñu fàttaliku gëm yàlla gu dëgër gu dara koo jur ak li gëm yàlla laaj ci tënku ci ndigalul yàlla yi ak kenn du la séen ci ay tereem waaye rafetal jëme ci nit ñi rafetal jëme ci ñëpp loolu it di lu jamono soxla moo waral kilifa yi di santaane woote bisimil nii ngir ñu nafar dundu gaañu baax ñooñu gëm yàlla gu dëgër sëriñ Abdou Khadre ràññi ko na ci lool te suñ jamono ji mel na ne gëm yu yoo doyadi daa tasaaroo ci réew mi ba tax nit ñi dugg ci lu ne di def njaaxum gu ne fàtte yàlla seen borom bi leen bind di mooy yàlla di def lu dul noona ndax gëmut yàlla kon buñ delloo see see Abdu Xaadir ni mu gëmee woon yàlla danañ xam ne gëm yàlla rek a wóor waaye gëm yàlla rek am njariñ waaye gëm yàlla rek mooy kiiraay waaye lu ci yàlla yit ba nga xam ne lépp lu muy xëcc mbaa lu muy jeñ yàlla la ci yaakaar yàlla aaral ko boppam sàmmal ko mu dund lim dund lépp di mbaax di wiiw ba ñibbi aljanna radiyallahu anhu kon loolu bind bu ñu war a jël la waaye jëlit rafetul jëme ci nit ñi ci waxtu wi nga xam ne nit ñi jëmu ñaawal ak waxu ñaawteef jàpp nañ ne moo di ngóor a sunu borom dañoo waxoon ne wa qulu linnaasi xusnan nañuy wax nit ñi wax ju rafet wax ci alquran ne inna alladina yuhibbuna an tashia alfahishatu fi alladina amanu lahum adabun alimum nee na ñi bëgg ay ñaawteef di tasaaroo yàlla ngi leen di négee mbugal bu métti bu yomal xiyamee ak fii ci àdduna sëriñ Abdou Xaadir nag rafetal ci moom la yemoon kàddu yu rafet di wax nit ñi lu baax di jokk ak mbokk di ko dundal kon ku fàttaliku bisam war a teewlu yooyu mbokk yi nañ jël ci ñoom bind bindu xam ne li ñuy jariñ nit ñi ñoo koy defal seen bopp te àdduna ab jaarukaay la boo xam ne ñun ñëpp dañuy dem wujj yàlla suñu borom boo liggéey te li liñ doon def fii loolu la ñuy seetal boo liggéey kon nañ ko rafetal bàyyi xel la xakim boo waxoon saa su ma di ko wax nit ki fexeel ba boo génnee àdduna ñu lay fàttaliku fàttaliku rafet faw ñu fàttaliku la nit ku mën a doon fàttalikul ci lay mujj fexeel ba mu rafet loolu la ñu xakim waxoon wa innama al maru xadiisun baadahu fakun xadiisan xasan li man waxa Sëñ Abdul Xaadir nag jëmmal na xadiis xasan foo mën a waxtaane ci moom diggam ak boroomam diggam ak jaamu yàlla yi diggam ak njabootam diggam ak i bokkam diggam ak àdduna ak mbaax rek ngay gis ak yow loolu moo tax ba mu génnee àdduna ak tey fanweeri at yu mat sëkk la yu tegal ay weer waaye waxtu wu ne xol yi da ko gën a bëgg ay jëfam yu baax di gën di loolu nag mooy royukaay kon sëriñ bi day wax ne li misli hada falyamalil aamiluun loolu moo tax bi mu sëriñ bi santee sëriñ di mu ànd ak njaboot gi taxawal màggal gi sëriñ baa ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci tàmbalee ko ci alxalifatul am lil muridin cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu ba mu sàmm ko te dëgëral ko te dooleel ko euh, taxawaayam rafet na lool ci lépp kër gi waaye lépp yoon wi ak diine ji ñëpp di ko sagoo di ko ndamoo di ñaan yàlla sàmm ko ci guddal aw fanam mottali ay naalam ndax lim naal bu noppee àddina am jàmm diine am jàmm euh, ndaw bi fi teew sëriñ maam Thierno doomam moo ko jiite ànd ak délégation bu am solo boo xam ne ñii nii teew ci biir mbooloo mi sëriñ bi waaye di sant bu baax nag sëriñ Sidi mi sëriñ bi dénkoon liggéey bi cant gi mi ngi koy tàmbulee ci ñoñ alquranul karim ñi nga xam ne ba weer wi teroo ba tëgg ni ñu ngi jàng alquran. ci daara yi ci jàkka yi ci barab bu ne ak fii ci kër gi lépp di aw yiw woo xam ne dañ ko haddiyal sëriñ Abdou Khadre Mbacké sëriñ bàgg leen sant di leen ñaan yàlla di wax ne alxuraan jooju ñuy jàng moo li ëpp solo ci màggal gi waaye di sant borom xam-xam yi nga xam ne jataay yi xam-xam yi ñu doon nos di ko taxawal ci rajo yi ak télévision yi ak ci kër yi ñoom ñoo àndoon ak sëriñ bi di ko taxawal ci on rafet sëriñ bàgg leen sant bu baax di leen gërëm di sant it nag autorités yi nga xam ne di tàmbulee ci sous-préfet ba ci gouverneur ba ca kaw seeni kilifa euh, jataay yi ñu amoon ak ñoom liñ leen soxla woon ci màggal gi lañ ci man lépp def nañ ko ci sëñ màggal di sant di rafetlu seeni taxawaay waaye di sant ñi topp seen ginnaaw ñëpp mooy mbooleem kër yi nga xam ne tàmbalee ci meeru Touba ak kilifa am sëñ Abdou Lahad ak ñi mu ànd moom waaye gendarmerie police ñu yor wàllu ndox mi Sénélec service de seen wàllu wér-gi-yaram ñu yëngu ci commerce ak sapeur pompier ak eaux forêt ak Sonatel sëriñ bi nee na ñëpp gis na seen taxawaay seenu jàpp ci màggal gi mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaye mënta ñàkk sant it kilifay kër gi ñi nga xam ne dañoo jabootee ay kilifa te aju ci ko Sëriñ Abdou Khadr seen taxawaay yu rafet ak seen njaboot yëpp nga xam ne lu ñu soxla ci màggal gi kenn du leen ci jiitu kenn du leen ci man ñëwul seen bopp yebal seen njaboot sëriñ baa ngi rafetlu seen tawaay yëpp di sant bu baax it mbokk yi nga xam ne sëriñ bi dafa tànnoon ci màggal gi ay kër ngir waajale fa màggalu sëñ bu Khadir xool ñoo xam ne séq nañoo sëñ Abdou Khadir lu bare bari tàmbale woon ko ci njabootu sëriñ Cheikh Asta Walo Mbacke mu Mamour Diarra radiyallahu anhum sëriñ Mbacke ne ca bopp ba ñu ngi teew ci jataay bi ànd ñu taxaw taxawaay bu rafet mbooloo mu bari teew fa waxtaan yu am solo la sëriñ ba bëggoon ci tabi lépp def na ko sëriñ baa ngi leen sant bu baax di leen ñaanal waaye di sant it njabootu sëriñ Baara Ñang nga xam ne sëriñ Abdourahmane Ñang moo ne ci bopp ba moom itam bañ fa demee ànd njaboot gi waxtaan fa waxtaan yu am solo ñu def fa ay lu baax lu ñu def ko fa la sëriñ bëggoon lépp am na ko moom itam demoo ni ci kër soxna may moo ne moom sëriñ Abdou Khadir ci kër sëriñ baax yi nga xam ne soxna may ak njabootam ak njabootu sëriñ Abdou Baqi gépp ñoo àndandoo jàpp ca bis ba ba la ci sëriñ bëggoon lépp maam ko ci sëriñ baa ngi sant njaboot yooyu di rafetlu seeni taxawaay ak xol bu sedd bi ñu ànd ak moom ci biñ leen sàkkoo ci ñoom loolu ñu bëgg ci xam liñ seqoon ak seen i wayjur ak sëriñ Abdou Khadir mbag sëriñ baa ngi rafet lu baax loolu di sant bu baax Euh, taskati xabaar yi nga xam ne moom ñoom ñoo àndoon bañ tàmbale ba nëgën muy rajo yi télévision yi site internet yi surno yi ñëpp jàpp nañ ci kenn ku ne fa nga ma ne ba lu baax li bale ci jàngat dundu seen bu xaadir tey ku ci bëgg a jot ku ne mën nga cee jot sëñ baa ngi sant ñëpp ci loolu waaye di sant baaxit nag waa tuubaa ca kanam mbooloom am solo taalibe Sëriñ Touba yi nga xam ne moo ay nu jafe-jafe yi amoon ca Baxdaad forage ba ñoo jënd pompe ba monte ko fa dafa nañ taxawaay yu rafet yoo xam ne sëriñ baa ngi sant di ci bëgg di ko teg yoo xool sëriñ Habib mi nga xam ne mooy seen njiit waaye di sant it kilifa yoo xam ne sëriñ bi nee na jàpp nañ lool ci màggal gi di ay xarit ak i wëllëre waaye di njaboot ci kër gi it